sénégalais euh, seen sa sa kër mun nañu wax sa papa sa mentor parce que Abdoulaye Wade mm-hmm. noonu lañ ko considéré au Sénégal mm-hmm. euh, comment s'est fait le le link avec euh, son fils Karim Wade non Karim Wade on s'est connu dama depuis parce que mën naa wax depuis 2000. vous avez partagé le, ouais, le gouvernement depuis 2000 li ma nekk ci cours d'éducation tout ça bon on se connaissait très bien ensuite ñoo defandoo gouvernement parce que ñoo duggandoo gouvernement. Mm-hmm. parce que 2009 tu dugg gouvernement. 2009 ba 2012 on a fait dugg nañ ci gouvernement. on a d'excellentes relations donc c'est mu nekk euh, ensuite euh, bu mu amee aussi ay gàllankoor taxaw naa ko j'étais au PDS taxaw naa ko bu baax a baax. faisais des réunions dama dem di ko seeti ci kaso bi di waxtaan ak moom ci kaso bi di def ay réunion ak moom ci kaso bi di teg ay stratégie ci kaso bi donc loolu bu mu bu mu woy kër loolu la ma fàttali vraiment dis na ci man may ñëw di wër Sénégal. wut euh, ndomb tànk bu toll ne euh, njiitu réew te ne ci sama wet. parce que nee nga daf la oo téléphone. waaw moom moo woo téléphone le 13 octobre exactement. waaw avant ça depuis le le 16 août euh, yónnee na ma émissaire moom ak papam Aline Diop ak Saliou ak Saliou Dieng. Mhm. je peux me permettre de donner des noms. waaw ñoom ñëw ñëw depuis le 16 août ñu wax de pratiquement de 22 heures à 24 heures on a parlé en tant que frère ku nekk li nga xamoon on a mis sur la table. ñu ma nag man bon comme vous êtes des émissaires. Mhm. xëy na ceux qui vous ont envoyé danañ ma woo mbaa di ñu wax ak man ci la ma Karim woo le 13 octobre bu ne ma vraiment da bëgg nga jàppale ma man ko je suis d' accord donc loolu moo tax ma ne euh, des des amis pour rejoindre des frères li nga wax temps ñoom am nañ ku ñu ku ñu ku ngemb Amadou Ba daf la doyul wala. non xam nga Amadou Ba Macky moo ko choisir bu mu ko choisir man waxul ak man tàggu ma xam waxuma xamay dara. Amar Ba aussi xam naa ko bu baax ba la dernière fois que je l'ai vu on s'est rencontré chez Farba Ngom bi Farba Ngom amee deuil yi ñu lakkee këram. waaw dem xam nga loolu laa wax léegi parce que c'est ça la tradition. Mm-hmm. nit bu amee lu ko métti. que dem seeti ko masawu ko dimbalu ko jël as tout ci pois bi pour mu woyof ci moom. Mm-hmm. parce que c'est ça le sens de de jaalee ak ak yu mel noonu. Mm-hmm. foofu laa ko gis foofu foofu la ñu tàggoo. donc bu ñu ko tàbbee waxuma dara gisuma dara ki taxoon ma ñëw neen moom pare na ci soxlul euh, beneen mandat. man pare naa ci bu fekkee ne kii moom mu ngi Qatar woo na ma jàppale ma ah xanaa kay dem damay jàppale ku ma woo mais ku ma ku wax dëgg yàlla mun moo la jàppale. monsieur le ministre seen candidat kañ lay ñëw. très bientôt incha allah congrès bi PDS euh, nar pour investir ko incha allahu rabbi moo koy euh, moo koy présider. kañ ngeen xalaat amal seen congrès bi peut-être. waaw loolu rek daa ci waxtaan waa parti bi en tout cas ñu ngi ci préparation yu rëy incha allah ñu ngi koy préparé mun wax parce que ñor na sax. d'accord yekk yekk rek moo des incha allah. quelles sont les chances de votre candidat. Hmm? surtout que gëj na ma ne lan mooy chance su Karim Wade même si y a l'appareil est là franchement l'appareil moom est là mais quelles sont les quelles sont ses chances. Ah, Karim Karim daal mal chance mal chance am rek mooy ñàkk ñëw. mooy ñàkk ñëw. ñàkk ñëw mooy mal chance am ñàkk ñëw rek mooy mal chance am mais bu ne cëpp Paris ba Italie ba fii ci Sénégal. <laughs> le, le, le, la terre va trembler. Merci beaucoup, monsieur.